yéen mbokk jullit yi yéen ñi nga xam ne da ngeen am soxla ci wàllu kaaraange muslaay ubbeeku ak yu ni mel yéen ñi nga xam ne da ngeen di lijjanti wàllu kayit pour tukki yéen ñi nga xam ne yéenay waajal examen ak i jigéen ji nga xam ne dafa yéex am doom seen saafara yegsi na seen jaaxle jeex na jokkoo leen ak oustaz mi nga xam ne dafay liggéey ci wàllu alquranul karim ak secret yi nga xam ne moom la fi mag ñu baax ñi bàyyi lu ci mel ni xam suuna xaaf kursil kabir mu Moussa. karafil shamsul bilaad ak yeneen ak yeneen waaye yow mi nga xam ne danga am soxla ci muslaay ndax cat làmmiñ liggéey bu bon ak yeneen yu ni mel yow mi bëgg ku beeku yow mi soxla bay rek ñëwal mu jox la ndomba lii ñu tuddee wàllu mag boo ko takkee lépp loo xam ne moo aju ci yu mel yàlla dina ci def saafara ci kàttanu yàlla yow mi nga xam ne nag yaa ngi xaar boobu ba tey jëkkër mu tën a ticc am na téere bu doy waar boo xam ne mag ñee ko fi bàyyi ñu tuddee ko du tilim boo ko takkee ci kàttanu yàlla balaa muy tilim di nga dégg alxayri kon nag Oustaz Sidy Top ak secret alxuraan mu ngi noonu jox jokkoog moom yomb na mu nga ca Ouest Foire balaa nga yegg ci brioche dorée ba bu la neexee nga jox jokkoog moom ci 77 959 08 97 numéro boobu am na whatsapp wala nga woo ko ci 583 86 53 jiital 77 ba bu ko defee Oustaz Sidy ci kàttanu yàlla ak ci secret alxuraan dina faj sa aajo. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di leen baalu àq bu baax rafetlu seen ànd bu ngeen ànd ak seen chaîne bi di alxuraan karim dikna wa shifa di seen bi leen di baaxee. lépp loo xam ne lu aju ci ay njëriñ la ci alquran yoo xam ne mënees na cee ñaan mënees na cee faju mënees na cee muslu waaye itam di leen firil seen ay gént di ñaan ngeen envoyé seen gént wala bu ngeen amee beneen soxla te moom ngeen ko envoyé ci numéro whatsapp bi incha allah da ngeen déggante ak ci kàttanu yàlla wala ngeen woon tey ñu ñëw ak yéen ci firi gént ak yéen ci gént ñu jox la xibaaru nit ku la jege wala koo xam mu génn àdduna mu faatu yi nag bokkul ak gént sa waajur bu góor wala sa waajur bu jigéen boo xam ne faatu bokkul li ma wax koo xam ne sa xarit la wala koo xam la wala koo miin la nga gént ñu tàgge ko ne la génn borom kër bokk ci sa soxna bokk ci sa waajur bu góor bokk sa waajur bu jigéen bokk ci ki nga xam rek wala mu ne sa wëllëre la ñu bari dañ buñ ko génte dañuy ragal wala dañuy tiit waaye gént ñu jox la xibaaru ko faatu wala gis génn àdduna jotewul dara ak dee jotewul dara bokkul sax ci gént yi nga xam ne dafay firi dafay firi dee yooyu nag danañ ci ñëw xam naa gént yu diis wante danañ ci ñëw du arrangé séeréer si waaye danañ da nga gént d'abord yow ci sa jëm bopp nga faatu wala am ku la wax sax ni la yow mii sàngam da nga faatu weer sàngam dat sàngam bi sàngam loolu ko gént laaj la bu fi ñëw koo xam ne dafa gént daal am ko ko wax ne ko yow da ngay faatu bi sàngam dat sàngam wax wax ko weer sax la ko wax ak at euh, bu fekkee koo xam ne mi ngi dund la ki la ko wax moom mi ngi dund baax na lool waaw baax na lool ci yow mi nga xam ne yow lañ yow lañ ko wax ñaari maanaa la am benn bi mooy gudd fan ci yow mi nga xam ne yow la beneen bi mooy sa dund bi yàlla noonu la ci may ay ay ijaaza maanaam ay diplôme walla ay voilà ay garaat yu kawe kawe kawe gént bu baax a baax a baax a baax la fi mu bonee nag boobu moom baaxul mooy ki nga gént mu wax la ko génn àdduna maanaam ku faatu ku génn àdduna moo la ko wax loolu moom dañuy wax ne du du du jaas maanaam ni ñu la ko waxee ca date ba sa weer woowu sa at ma dañ ci génn àdduna incha allah parce que wax naa toujours ne koo xam dafa génn àdduna ñoom ñu ngi ci daarul xaq maanaam ñu ngi ci këru dëkk kii dund nag bu la ko waxee baax na bu dee ku faatu moo la ko wax baaxu loolu moom dee lay firi wallahu aalam beneen bi yow sa jëm bopp yaa gént nga génn àdduna nga faatu nga gént faatu baax na tegtal bi leen rek mooy danga nga ci étape dem ci beneen étape ci sa dund maanaam yokkati ko wala yëkkati ko ci sa dund bu fekkoon nga nekk célibataire boo xam ne amaguloo soxna wala amaguloo boroom kër ñaari mën na nekk mën na nekk sëy wala mu nekk at tawba minal maasi maanaam tuub ci yi nga xam ne ay rëcc la ci la ay bàkkaar yoo def yu mel noonu ala xaalin baax na daal ci gàttal dafa am koo xam ne xam nga ko gént mu génn àdduna kooka mu ngi ci prison ba bu fekkee ku nekk kaso la incha allah dana génn bu fekkee ku feebar la nga gént mu génn àdduna dana jug ci feebar ba bu fekkee ku nekkoon ci ay xat-xat jafe-jafe nga gént mu faatu dana jug ci feebar bu dee koo xam dafa néew doole ci wàllu kàttan amul ah, wàllu koom amul maanaam ku ñàkk nga gént mu génn àdduna yàlla dina ko jox koom bu fekkee koo xam ne am na ba pare waaye nekk ci ay jafe-jafe nga gént ko mu faatu yàlla dina ko génne ci jafe-jafe gént bu baax ala kulli xaal beneen bi da nga gént na koo xam ne ku ku cher la ci yow maanaam sa xarit la wala voilà ku la jege la daal nga gént mu génn àdduna tafrij humum maanaam tegtal mooy dana génn ci ay jafe-jafe ak i xat-xat yoo xam ne danga ci nekk bu dee sa xarit la nag moo xam ne yéen ñaar a jegandoo di ànd di tëdd àgg fenn fi nga gént mu àdd mu génn ak tadulu ala taxallus min al mashakil mooy bu fekkoon nga nekk ci ay jafe ki xatkat yu bare métti yàlla dana ci génne incha allah voilà da gént waxoon naa ko koo xam ne dafa feebar sa la wala mu jege la mu génn mu nga feebar nga gént mu génn na dana jóg ci feebar ba bii nag danga gént ku génn àdduna mu faatu bon wax nañ la ko nii rek xibaar la boo xam dafa ñëw ci yow gisoo ko waaye wax na la tàgge la ko daal li muy tegte la mooy xibaar bu neex bu am njëriñ ci yow da ko am incha allah fii mu ne kooku daal génn na xibaar bu baax buy ñëw ci yow la bu dee ki génn àdduna da nga ko gént koo xam ne génn àdduna nga yëg ne bu ñu génn ñi tàggale ko yaa ngi jooy jooy yu métti moom itam euh, tafrij min baadi min baadi déejiq maanaam bu fekkoon nga nekk ci ay jafe ak i xat-xat yàlla dina la ci génn incha allah beneen bi da gént yow nga génn àdduna ci biir gént gi nga dellusiwaat dee nga dekki ci même gént gi ci nga gént loolu yow même gént gi gént nga ci dee dekki baax na tadullu ala al amwal al kathir maanaam xaalis bu bare bare boo xam dana ñëw ci yow fi mustaqbal ci kanam-kanam bu dee na keneen la koo xam ne du yow waaye keneen la nga gént kooku génn àdduna ci biir gént gi mu dee ci dekk ci biir gént gi boobu moom baaxul maanaam bu fekkoon da nga nekkoon ci ay bàkkaar yoo xam ne da ko defoon bàyyi woon ko da nga ci delluwaat bu dee yow yaa génn àdduna ci biir gént gi nga dee ci dekk ci baax na ci yow xaalis waaye bu dee keneen koo xam ne dafa génn àdduna nga gént beneen waaye bu génn àdduna si biir gént mu dee si dekk si baaxul ci yow nga gént du ki di ki ko géntal yow la dafa am ay yu bon bon wala yu yoo def yoo xam ne bàyyi woon nga ko te dañ ciy dellusiwaat waaxul euh, célibataire bu jigéen bu géntee koo xam ne ku ko jege la ku mu miin la wala yu mel mu gént mu mu génn àdduna tegtal benn rek mooy gudd fan la ci moom mi nga xam ne moom la géntal lool du moom célibataire waaye ki ñu ko géntal yàlla dina ko may gudd fan lool lool lool Euh, bu fekkee nag célibataire bu jigéen wala ku góor mu am ku muy bëgganteeg mu yaakaar te mu sëy yàlla dogal mu gént te mu génn àdduna mu faatu baax na lool xibaar bu neex la incha allah sëy la ci seen diggante ñoom ñaar incha allah wala boog mu nekk xibaar bu neex boo xam ne dana ko jot ala kulli xaalin lii moo dellu ci gént ku kuy dund nga gént mu faatu danañ firi ki faatu ba pare nga gént mu nga géntaat dëjëm nga géntaat mu faatuwaat danañ ci ñëw sa waajur wu góor wu dund nga gént mu génn àdduna sa waajur bu jigéen daan ci ñëw sa soxna wala sa jëkkër mu génn àdduna daan ci ñëw waaye tey ñu ci firi gi nga gént yow nga génn àdduna walla koo xam da nga koo xam mu jege rek nga gént ala kulli xaal gént bu baax la benn rek la baaxul moo di nga génn koo xam ne faatu na mu wax la ne la yow da nga faatu ci at sàngam wala ci weer sàngam loolu moom dañu wax ne fu foo ko géntee boo boo sàkk saax te yow ko ñaan te xam ne faatu lay firi wallahu aalam wa ma zalika allahi bi aziz ñu leen di euh, am wa rahmatullahi wa nga xam ne da ngeen am soxla ci wàllu kaaraange muslaay ubbeeku ak yu ni mel yéen ñi nga xam ne da ngeen di lijjanti wàllu këyit pour tukki yéen ñi nga xam ne yéenay waajal examen ak concours jigéen gi nga xam ne dafa yéex am doom seen saafara yegsi na seen jaaxle jeex na jokkoo leen ak usa Sidi Top mi nga xam ne dafay liggéey ci wàllu alquranul karim ak secret yi nga xam ne moom la fi mag ñu baax ñi bàyyi lu ci mel ni xamsuuna xaaf kursil kabir umu musa karafil shamsul bilaad ak yeneen ak yeneen waaye yow mi nga xam ne danga am soxla ci muslaay ndax cat làmmiñ liggéey bu bon ak yeneen yu ni mel yow mi bëgg ubbeeku yow mi soxla bayre ñëwal mu jox la ndomba lii ñu tuddee wàllu mag boo ko takkee lépp loo xam ni moo aju ci ni mel yàlla dina ci def saafara ci kàttanu yow mi nga xam ne nag yaa ngi xaar boobu ba tey jëkkër mu tëla ticc am na téere bu doy waar boo xam ne mag ñee ko fi bàyyi ñu tuddee ko du tilim boo ko takkee ci kàttanu yàlla balaa muy tilim di nga alxayri kon nag Oustaz Sidy Top ak secret alxuraan mu ngi noonu jox jokkoog moom yomb na mu nga ca Ouest Foire balaa nga yegg ci brioche dorée ba bu la neexee nga jox jokkoog moom ci 77 959 08 97 numéro boobu am na whatsapp wala nga woo ko ci 583 86 53 jiital 77 ba bu ko defee Oustaz Sidy ci kàttanu yàlla ak ci secret alxuraan dina faj sa aajo.